Masya Allah. Wahna na wax na bu bu am solo bu diis lool ci yegg ci biir kër ndax léegi loolu lu ko waral mooy njëkkee yeeg goro yi ak borom kër yi sax jëm ciy bokk mooy intérêt rek la ñuy dox gis ngeen ci ci kër gi waaye nee naa ku ne ci ngërëm ngir jëmmi borom bi suuf si dee gis bu la tegoon siis waaye nag suuf dina la sonal ndax ñun ñu ngi koy jëflanteel seen mbir yëpp ñu ko teg ci li ko ko ko am rek léegi jéeg ji xam nga lu dugg fas yéene di financé waaye duñ liggéey li naroon na liggéey ci kër gi yëpp dañ koy joxe bu ko joxe nit kenn wax borom du wax kenn du wax ku nekk di ñaari ñu ci kër gi benn jeeg bi nag am ngénte ki nga xam ne macha allah moom mooy liggéey dawal na oto bu yàgg dafa dem bàyyi ko ci ki nga xam ne jëkkër ji la bëgg yóbbu wala ba mu sonn ba ko yow de mu daal di toog di ko xaar Juga nga tigre ruya mu tigre ruya mu na ko ajani ti mu daal di suñu ko fi suñu ko Kau bay la ko bu dindi mu suñu wax dama lay yow dama lay wax lool dama la xol ba xam ndax yow li mau, sol ni ma ko mom wala mom ko ndax manan sama kaddu gi amul fu sambu yobbu ko la def jox ko xaalis ne ko del may ndax fi santante gi santante may xaalis do

bari leen mooy saa boo tàggoo sëñ la waaw baax na demal yow ma xam ne boo tàggoo eh ba moo de mu ne man dama yab kii rek lay bàyyi fekk ne da laa bàyyi xel bëgg bëgg ci dara yoon bëgg minutes allah Wadir biasa tidak ada yang semua itu yang bintik. Kor kor di mana mana itu bintik. Bahkan nama lagi dia Aku saz Yusuf ini nak kami cakap lagi. mau kamu bahmi. Saya Yusuf hafiz quran lah. Berbara Jangan lagi cuma dekat dunia firman. Nur ha, jangan Kami rasa ini dapat kami di perkara nak orang nak kami konferensi. conférence ba thème ba mi ngi nekk ahamiyatu salaat maanaam solo bi nga xamante ne julli am na ko solo wala ànd ak imam ba kon xam naa ñoom dañ leen di yeewi rek ndax yitte ji jiw tey jii moo leen di xaar lépp nag yaatal woote bi islam la rek yàlla leen